asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk sénégalais yi fépp ci àdduna ñu ngi leen di nuyu rawatina Europe du Sud gi nga xamante ne fi la ñu nekk ñu tamp fi pour ñu dem élection législative 2017 ñu nekk seen candidat te waa Espagne def ñu pour ñu représente leen au niveau de l'Europe du Sud ñoo ngi nuyu ñëpp di del di leen ziyaare yéen ñëpp comme niñ leen ko promettre woon rek.

te ki ko jiite nekk le professeur El Hadj Issa Sall ah li leen yëkkati rek mooy que ni ñu delloo Sénégalais yi seen gëdd delloo Sénégalais yi li nga xamante ne ni moom lañ moom moom lañu ñu loolu nag pour mu mën a nekk wala mu mën a am duñu taxaw ci mbedd mi rek di ko wax dañu koy concrétiser mooy dañuy dem assemblée nationale. pour me faire foofu non, une rupture Nous nak ñu jóg takku nek une équipe très dynamique une équipe très forte fas yéene laaj yeen wa askan bi sen cadeau pour yóbbul leen ko assemblée nationale. assemblée bobu nak buñu ñu fa àggee ginañu fexé ba delloo assemblée bi ay te mooy que ni bépp projet de loi boo xamante ne ni indi nañu ko mu xam ci nguur gi la jóge ak mu xam fu mu jóge bu dul intérêt askan bi ñun waa parti PUR ko voté te tamit duñu ca yem dañu propose suñu ay projet de loi yoo xamante ne ni lépp rek ci njariñu askan bi la waaye itamit dinañu fexe ba député bu ci nekk. di nga xëy heure di nga parce que mootuñu accepté nag fii réew mi toll ñu suñu xaalis di la ko fay ci sénégalais yi di passeport diplomate di la jox carburant ngay tëdd sa kër ak di fa nekkal nguur gi loolu avec parti pur jeex na bis député à l'Assemblée nationale di comme tout le monde dinañu fexe itamit député boo xamante ne nii sa sa xam-xam màccul ci wàllu français wala sa xam-xam màccul tamit ci wàllu wolof dinañu fexe ba projet de loi boo xamante ni indi nañ ko fa ñu ay expert maa xam nu ñu ko mën a tuddee ay assistant ñoo xamante ne dinañ leen ko expliquer clairement jàppale leen si ba ñu xam exactement li ñuy voter. mais voter à l'œil dafay jeex lépp lu ñuy voter dañu koy xam xam mooy lan. beneen bi si tegu mooy que ne ñëpp gis nañ temps yi opposition bi ak pouvoir bi nguur gi ya nekk assemblée nationale ni ñuy waxante wax bu ñaaw ku si nekk naan wàll finance bi ñii lañ ko defee wàll finance beneen lañ ko defee lépp loo xamante ne nii. comme ni ko nguur gi promettre woon te defu ko dinañu permettre ñi nga xamante ne ni ñoo war a gëstu saytu kees yi nekk ci assemblée nationale xool lañu fay génne fu mu jëm ak lu ko waral ndax am na suivi wala amul suivi ñun waa parti PUR dinañu si taxaw ñun waa parti PUR bis bu ñu demee assemblée nationale comme foofu la ñuy voté les projets de loi euh, budget yi nga xamante ni mooy budget yi nga xamante ni moom la ñuy jox ministère yi foofu la ñu koy voté ñun waa parti PUR

ni mu gëna yewé ni mu gëna dalé inshallah donc piyu moy parti bi nga xamante ni mo siu mo moo ta mo nek parti de valeur donc voter et faire voter piyu si c'est piyu je m'engage